war na ko jot au moins quinze jours avant. Mm, mm. donc euh, alors ñoom ñoom daal ñu ngi ñun la facture xam nga dafa war a ñëw donc yow yaa waaw ñoom ñoom war nañu xoolaat seen bopp quoi. Mm-hmm. parce que aussi euh, boo bëggee nekk boo bëggee di euh, exiger nit ñi loo xam ne service qualité def lii ni war a def. Mm-hmm. qualité qualité bi def si war a am maanaam service dañ ko war a doxalee. ni ñu ko war a doxalee mu am nag qualité service prix. Mm-hmm. voilà. Ramatoulaye balaa ñuy dugg ci sujet bi dañuy souhaiter ñi nga xamante ni suñu mbokk euh, chrétiens yi euh, benn benn ñu nekkoon ci seen euh, fête Toussaint une joyeuse fête parce que ñoom ñoo ci nekkoon démb doon ñaan ñaan yàlla aussi liñ doon ñaan yal ko yàlla def xéwal ci Sénégal. Mm-hmm. amiin yaa rabbal aalamiin donc démb ñi ngi doon célébrer Toussaint. Mm-hmm. alors c'est la fête de tous les saints. Mm-hmm. et occasion la également pour ñu dem recueillir ci tombe de défunts. donc ñu gis ni démb daal def na ko ci dans la. il faut le dire avec toute la spiritualité que ça demande. Mhm. mais encore am na. gis nañ ñu dem ci cimetière yi di ko nettoyer ak di defar yooyu yëpp. waaw ñoom chaque année noonu mhm. def pratiquement dañ koy def mais message bi ñu ci mën a jàpp aussi mooy euh, li nga xamante ni catholique mi ngi koy demander un autre cimetière parce que xam nga boo xoolee Saint-Lazare. xool mhm. Bel également. donc euh, tey jii fees na ba nga xamante euh, soxla nañu yeneen yu gën a yaatu. a également foofu mhm. population bi ñu doon wax euh, pour ñu gën a yaatal leen donc mhm. euh, nañu joxe ci suuf si nga xamante ni moom moo nekkee foofu au lieu que suuf si ñu koy jox ñoo xamante ni ay tabax lañ ci daf di ko loué wala am yeneen euh, jumtukaay yoo xamante ni moom la ñuy jëfandikoo daal lii moom moo ëpp solo je pense mhm. oustaz nu mu valable ci catholique yeeg chrétien noonu la valable aussi ci musulman yi ñoom ñëpp ñi ngi wax ay wax extension parce que gis nañu ko jamono ji cimetière yi presque yëpp a espace bu ñu gis rek dañu ko war a tabax bu ko defee ñu dëkkee ko sóoraale wuñu sax nekkuñu sax di sooraale li nga xam ne mooy bu nit ki génnee àdduna fan lay fan fan lay jëm te war nañu xalaat bu baax a baax ci wàll woowu rawatina fii ci dakaar nañu imaginer fii ak 40 ans fii ak cinquante an yëf yi nan lay nan lay nar a demee kon il faut ñu aménager ay espace yoo xam ne euh, ci dund gi la bokk espace yooyu mooy ay cimetière ak yu mel noonu bu ñu ko Euh, desalee ginnaaw rek. Mhm. dinañu dem ba do euh, nit génn àdduna duñu xam fan lañ koy yóbbu. Mhm. Euh, bu ko defee bésu démb bi itam am na benn lecture boo xam ne nit mën na ko cee gis muy cohabitation bi nga xam ne am na diggante diine yi parce que dama par hasard dama romb booru Saint-Lazare. Mhm. noonu di dem ñu ne ma gis nga ñuy jaay na la yëpp. Mhm. ñi ci ëpp sax ay jullit lañu. dëgg la nga xam ne yëf yi. mooy euh, fleuriste yu nekk foofu ak euh, sama mbokk yi di raxas oto foofu. moo tax bokk na ci mhm. erreur sax ñuy wax ci Sénégal di wax euh, dialogue islamo-chrétien. Mhm. non non ñun weesu nañu dialogue ñu ngi ci cohabitation naturelle boo xam ne dafa dafa dafa nekk loo xam ne lu exemplaire la. loo xam ne mën na solutionner ay problème yu bare bare bare waxuma la ci Afrique mais ci monde bi gis nga problème ba nekk fële ca Liban. Mhm. boo demee nga xam ne même bu ñuy fal sax ñu ngi seet kii fan la féeteek yu mel noonu wàllu religion ki yu mel noonu ñun euh, suñu suñu kaaw Sénégal bi daf ko dafa exemple la ci problème yooyu ñu war cee inspiré wu pour pour mën koo régler boo demee fu mel ne Irak itam la même chose waxantuma la Afrique bi nga xam ne boo demee ay Afrique centrale euh, tëll tëll ba nga fay dégg ci cadre boobu mhm. euh, yaakaar naa kaaw Sénégal exemple Sénégal Euh, ci wàllu cohabitation ci diggante diine yi. cohabitation bi sax oustaz lu tax mu nekk une vérité euh, tey jii boo xoolee ci famille sénégalaise yi da ngay gis koo mhm. xamante ni papaam euh, jullit lay doon yaayam nekk nekk catholique. ku ci mel ni ku ci mel ni ku ci mel ni kii sama wet DJ Youmi bébé bébé Walf ñu ngi ko doon gis aussi ci yenn image mu dem ci cimetière yi di di nettoyer ak mhm. yooyu donc est-ce que terme bu approprié bi sax mooy. Euh, cohabitation bi ngay wax. mooy de mooy ay famille c'est plus qu'une cohabitation c'est de famille ndax ci famille boo jël rek. Mmh. am na ci koo xamante ni ci benn pàccam rek. te dafa am euh, ci mmh. diine catholique. comme mmh. aussi dans les familles catholiques tu que ni kenn koo xamante ni ci benn pàccam bi musulman la. dafa am yu bare yoo xam ne ñun dañ koy jéggaani. ci bitim réew moom rasta la moom ñu naan ah, catholique ak ah, ah, chrétien. waaw waaw waaw kon bu bu bu ñaasame. non dama ne. xaw ma ñaata onze mai onze mai onze mai bu jotee ñu laaj ko. <laughs> waaw mais dama dama doon wax ne dama doon euh, clarifier benn euh, affaire rek par rapport à la date du premier novembre. Mhm. premier novembre mooy euh, la fête des saints. Mhm. moo tax ñu tuddee ko tous les saints. tous les saints tous les saints ça forcément que da war a tudd Georges wala da nga tudd. Mhm. Pierre wala da nga kii. mën nga tudd Aminata mën nga tudd. tous les saints les saints. képp koo xam ne. nit ku nit ku baax. nit ku baax nit ku sell donc. c'est pas forcément seulement les catholiques léegi les catholiques forcément léegi euh, comme c'est un jour férié au Sénégal euh, et un peu partout ailleurs donc nit dañ si euh, profité waale pour dem di ziare seen i seen woy dawlu bi mais la fête des morts tey la 2 donc ah, la fête des morts c'est le c'est le 2 donc mais tey c'est waaw tey la fête des morts nag tey c'est la véritable fête des morts mais hmm. démb c'était la fête des saints ah, maanaam ñu ah, sell yi gars yu sell yi voilà donc ñaar la mais comme gars yi dañuy euh, le 2 novembre c'est pas férié hmm. moo tax ñuy profiter le premier er novembre euh, di fa dem di fa dem demi boo demoon euh, Saint-Lazare par exemple di nga fa gis ay musulmans di nga fa gis ay hmm. catholiques parce que effectivement la preuve c'est quoi c'est que yàlla moo ñu moo bindee noonu Sénégal tey Saint-Lazare c'est pas seulement du ay catholique kese ñoo fa nekk de parce que bul fàtte bul bul fàtte ne euh, bateau Joola am na ñoo xam ne foofu lañ leen denc fu nekk nii Saint-Lazare boobu mhm. donc moo tax am na ñu bëri ñoo xam ne mënoo ne forcément que ñi fa nekk yëpp ay ay catholique lañu am na ñoo xam ne ay musulman lañ ñu ngi foofu nekk si bateau Joola parce boo demee si stèle bu ñu def foofu si biir cimetière bi ñu nekk si bateau Joola yëpp la ñu bind foofu amul amul seen tur amul musulman amul catholique donc euh, moo tax it boo c'est très important comme ni ngeen waxtu aussi que ni ñi état bi gestu aussi askan wi par rapport ak euh, élargissement cimetières yi parce que boo demee ci cimetière bu Bel-Air tey euh, ñi fa mënatoo fa leen nit à part nga fekk nga jënd fa sa sa cabo caveau mm. maanaam bu fekkee nga jëndoon sa cabo foofu amul problème bu bu kii rek mën nga fa denc sa sa mbokk wala quelque chose comme ça mais mm-hmm. Saint-Lazare bon saint rek moo fi si léegi te Saint-Lazare mhm. gis nga Dakar nu mu toll euh, Mm-hmm. bon jot na daal gars yi gestu cimetière yi. cimetière yi moom jë euh, sujet a waxtaanee. absolument a nañ ci jël seen matukaay. Ah mm-hmm. parce que parce que parce que parce que tant que. nit moom mën nga ñàkk kër goo dëkk ci àdduna. mais boo boo dee moom par force foog ñu suul la. xanaa xamoon foofu mooy dëkkuwaay mooy dëkkuwaay de tant que dañu ne tant que dañu ne euh, la population augmente chaque jour ñu dem si ngénte yi. wallaay dëgg chaque jour ñuy dem si mm-hmm. mariage yi. mais il faut aussi ngay préparer aussi kër yu dëgg yooyu nga xam ne foofu mooy bu juddu rek war nga fa am kër. Mhm. c'est pas comme ne suñu vie naturelle bi nga xam ne nit mën na juddu nii te du am kër Ndakaar wala du am kër Thiès mais boo génnee àdduna force ñu am fi denc. te foofu mooy sa kër bu mujj. foofu dañuy wax noonu boo demee ci armelu Yoff yi nii. Euh, daanaka doo gis espace. doo gis benn espace boo xam ne daanaka <laughs> doo xam sax. dañu ne nañu def ba di fa di fa di fa suul. Mm. Euh, kon euh, loolu lu jar a xalaat la c'est exactement yan stratégie la ñuy teg ba nga xam ne. Euh, du ñu dem ba nit gaañu doo am foo ko yóbbu. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo bu baax a baax euh, mais li gën a fës euh, Ramatoulaye ci actualité bi tey jii ñu ngi koy wax jamono jii ñuy àddu sax ñu ñuy teewlu ku mel ne Ousmane Sonko mi nga xamante ne mooy principal.